mais maître dossier bi fi mu toll tey ñëpp noonu am yaakaar nañ ko def non lieu juge bi ñëw ne tey confrontation mhm. looy wax patriote rek ma bàyyi la parce que da ngaa yàkkamti waaw ah, xam nga confrontation moo di teesante mhm. ki nga xam ne moom mooy def enquête am kenn mënu ko wax ni que da ngay xool fii wala da xool fële mhm. dégg nga kon loolu dara loo xam ne que anormal na lu dul que dañoo yaakaar ne balaa mu doon àgg am na ñoo xam ne doon léegi nag bu fekkee ne que jeex na confrontation bi xëy na dina déglu ñi nga xam ne war na leen nekk ci ne leen ñàkkatu dégg nga wala dem jël dossier bi jébbal ko nañ ko am wante bu fekkee nag daf ko atte lu te enquête bi ci ñun jeexagul bu boobaa dina def loo xam ne dina doy wax mais maître damaa dégg léegi nga ne téesante dafa mel ni ci ab téesante leen woo lu tax nga tudd téesante téesante moom mooy confrontation c'est-à-dire moom la ñu wax moom dañ koy laaj leen la ci xalaat moom it lii mu wax ci complot déeg yooyu. Mhm. ñu laaj aji lan la ci xalaat. Mhm. mais est-ce que dégg nañ ñu ay versions yu bari ñu ne est-ce que ñu ne avocat yi duñ wax avocat yi amuñ droit poser question. ah mhm. naan avocat bi amooroo wax. wante am ngeen droit tey poser question. ay saa très bien. mën nañoo wax su fekkee ne que ay question ba pare. ay question ba wante ci la ñu wax la ci loolu rek lañ leen war a laaj du laajaat yeneen su paree avocat Adji yi ñoom ñooy war a poser ay questions dégg su fekkee ne avocat yi pare nañu léegi Adji yi léegi nag avocat Ousmane Sonko ñu jël mais maître yéen dossier fi mu agsi nii bettu leen kan ñun ah. ma ne lii nga xam nekk ay féminin la nar a tas ci lu ñaaw a ñaaw a ñaaw waruloon sax jéggi gendarme wallaahi te ak nu mu mënti mel réew mi dina rëcc lool lool lool lool lool lool suñu yëggal ñi faatu ak àll ci yàqu mais procès nit ñi lañ ne procès day am parce que confrontation amee rek justice bi day dem suko bu loolu ay wax xam nga fii moom képp koo gis rek sëriñ la ci foo xam ne que mosu faa jàng mosu faa tay loolu moo indi wax yéen wante justice dafa am yoon te it enquête dafay tëju tëju gi nag moom moo di dañ ko àtte ji na fi yoon loolu mu di noonu léegi andi leen di ñaanal wasalaam di la baax a baax Ibrahima Gueye yàlla mais maître kon lay wax patriote yi mot de la fin moom moo di bu dee si état de droit lañ ne. incha allah dañ tëdd nelaw. ñu tëdd nelaw. alhamdulilah jërëjëf alhamdulilah suñu xel dal na gars yi.